bisimila daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp xibaar yu bari la yéene kaay yi xëy yendu ci altine tey ji ñaar fukki fan ak juróom-ñeenti weeru avril atum bi ci boppam la Sonko Jomaay song loola ko xamle mooy Pierre Goudiaby Atepa dogal booba nag tax yéene kaay bi ne ñi ne woon faax ci domaine public maritime bi ne la watunu ba yandoor le quotidien ne Pierre Goudiaby Atepa kay aw xeer wu rëy la wacc mu wadd muy dogal bi dakkal lépp lu tabax gun doon def ci littoral bi maanaam waaxi ndakaaru yi atepa dëggal ca booba lépp yéenekaay ne Bassirou Diomaye Faye santaane ñu dakkal lépp réew mi quotidien ni lépp kay la Bassirou Diomaye Faye wax nanu ko dakkal architecte bi Pierre Goudiaby Atepa ko xamle démb ma xamle it moom Pierre Goudiaby Atepa ca Libération ne fa des ca corniche ouest ba muy ay liggéey mooy travaux domaine aménagement ba mu ko bëggee teree tabax ab kër ca corniche ba mairub Ndakaaru bi Barthélemy booba jamono Les Échos di ñu xamal ne gisanteeg président Bassirou Diomaye Faye la bëgg te dana ko bindub lettre ñaan ko audience na mu ko defee woon ak Macky loola soxal projet yim am ci ville bu Ndakaaru buñ sukkandikoo ca booba lépp yéene kaay buy dellu siwaat delluwaati ci séminaire gouvernemental di ndaje mi gouvernement bi sekkoon ci kilifteefu président Bassirou Diomaye Faye journal bi ne la mu woon ca moomalem ndaje moom président ak premier ministre mooy mise maanaam fexe yokku xam-xam yokku yit doole jëwriñ yi won leen naka la gouvernement bi nar a liggéeye waaye itam dimbale leen ba ñu am jumtukaay yawar l'observateur ne ñeenti digle la leen président Bassirou Diomaye Faye digal ñoom ministre ya source aane maa la koy limal wax na leen nanu ngànnaayoo honneur disponibilité humilité ak compétence maanaam nanu fexe ba bu nu fàtte ni lii nu leen def muy tabb gi ak sargal la ndax am na yeneen doomi Sénégal yu ko mérito woon mënit seen liggéey am xam-xam waaye ñu wàcc fi ñu tànn leen kon loola sargal mënu koo weesu nee na leen itam disponible leen ku leen soxla ci ñi ngeen di jëflanteel na leen jot waaye it woyof leen wàccee seen bopp muy humilité compétence itam làmboo leen ko ndax moo tax ñu tànn leen maanaam mën-mën ak xam-xam ne ci yéen waral ñu taamu leen ngir ngeen liggéeyal askan wi yéenekaay bi ne président Bassirou Diomaye Faye kay ab grand oral la fa def yëkkati na kàddu yu bari bokk ca fàttali jëwriñ yépp li askan wi xaar coppite gu mat sëkk di rupture nee leen moom la askan wi xaar ci ñun waaye it yaakaar gu rëy rëy la woowale askan am ci bi des sunu kéemtalaay kàttan ba yaakaar booba askan wi am ci ñun du tas waral journal bi ne Bassirou Diomaye Faye ngay wéyal discours rupture bi séminaire gouvernemental ba mu woote samedi yéeni kaay ba ne kàddu yi dëgg la ca yëkkati jëme ci ay jëwriñam la doonoon jubluwaayu boobalem ndaje Sud Quotidien ne mooy capacité gouvernement bi maanaam yokku doole yokku xam-xam yokku yit xarañ jëwriñ ya premier ministre am tabb ngir ñu liggéeyal Sénégal liggéey booba lii Quotidien ne président Bassirou Diomaye Faye ci ñeenti pilier la ko samp Le Soleil tuddee ko ñeenti conseil président Bassirou Diomaye Faye yam jagleel ministre ya muy honneur disponibilité humilité compétence journal ba ne ka yi yeggee ministre ya journal ba ne ña leen doon yokk doole xamal leen itam organisation ak méthode de travail bépp gouvernement soxla critique tuddee loola Diomaye formula Diomaye mooma ca la regard moom la société civile bi fàttali la mu fi digge tukkee woon xaatimoon ko ca seen kanam muy charte ba journal ba ne ñooñe mooy ñi jël tukkee woon ci assises nationales boole conclusion commission nationale de réforme des institutions di CNRI def ko charte xaatim loo woon ko candidat bokkoon ca ñoom président Bassirou Diomaye Faye jëlal regard nag ñu di ko ñaax ngir la mu xaatimoon ca pacte national de bonne gouvernance et de démocratie booba mu doxal ko yéenekaay bi tuddee joojale jëf piqûre de waat la candidat xaatimoon bokk ca ñoom président Bassirou Diomaye Faye mii ñu tabb ci bopp réew mi ca vox populi ñu naan ko président engagement engagement la te ba ngeen nekkee ne cib démocratie période de grâce amul ku ne la nga war a def ngay def ca jamono jang ko war a defeek na nga ko war a la mu diggee woon ne dana def nag muy wàññi dundugeeg wàññi lu yaas gi enquête gis na ne du yomb ca moom waral mu ne Diomaye face à un casse-tête ba ne ñépp ñi ko fi jiitu ci bopp réew mi dige woon nañu loola waaye ngir ñu matale ko lu jafe la woon àlla jeen bu unaak waa yeesal ne subvention yi moom mënta doon saafara su yàgg Momar Ndaw bu askosen li tax yëfi di jafe mooy dañoo am ay commerçant yoo xam ne ñoom dara yitteelu leen lu dul nu def ba gën am xaalis ci ndoddu askan wi coordination nationale de régulation des loyers ma ngay sàkku it ñu jox koy jumtukaay yi mu liggéeyee président Bassirou Diomaye Faye yéene cabinet ab plan d'urgence la sàkku boo xam ne danañu ko mën a doxal ba xeex dundu gu cher gi ci réew mi dundu cher googa accident yi ak auditu contrat yi maître ma soxna kan ci lay wax ci rew mi quotidien boba jamono ci le réveil maître le dolli di wax ci deuk yi Macky Sall mujjé khatim tuddé ko au trahison ne lola yit jar nañu top ko mom jitu rew ma won avocat Sonko ba né président premier ministre di jomaay ak Sonko dano soxla askan wi yépp len len faawit ñu moytu di téla a ka ak xarab ndax rew mi li fi yaqku dafa bari té défar ko du yomb maître Amadou Ali kan ca boba lepp journal ne li nu wara def ak ñi luubal alalu askan wi dal moy fexé ba nu fay waye ca l'indépendant ma ngay artu né ab chasse aux guerre mën naa yënga réew mi kon nanu ko def ci anam gu dal te teey lanceur d'alerte ya ñu ne dananu leen dooleel tëggab luwaa bu leen di aar itam ma nga cay artu naan nanu ca dem ak xel ñu des ca journal booba Birahim Seck di sàkkoo ci cour des comptes ak IGE ñu fësal seeni rapport gannaaw bi président Bassirou Diomaye juróom-yaat yi nu weesu nanu ko génne yoor yoor bi moom xëy génney mbóot ca ko sec journal ba ne pompage à sec bu rëy lanu fa ne ay agent kaay coordonnateur ba ak ACP ba moom la def ci seeni salaire moo raw lépp ndax yokkuy teg wut fenn la ca def leneen lu teg wut fenn la fa yéenekaay ba gis mooy téeméeri millions yi ñu jagleel yeesal parc informatique ba di ordinateur yaak ñoom seen yenuy liggéeyee journal bi ne recrutement yi maanaam di jël ñu fay liggéeyit ña nga cay def lu doy waar ku ne di indi say nit la ca gën a yéeme nag yéenekaay bi ne mooy mooy transfert financier maanaam jokkalante xaalis gu teguwut fenn lëndëm kuruus gi dox diggante COSEC ak centre traitement bu ndakaaru booba jamono la lii quotidien dem ak ñun Kaolack ne ñu cancer bi ne jiyee jooja nag boo toppee ya ma la jëmale ca gerte googa yéenekaay bi ne aflatoxine bi daf caa bari ba yegg ci lool waral muy indi cancer ca booba leb gox yéenekaay bi ne taux de prévalence hépatite B booba nga xam ne cirrhose moo koy joxe ca tuut tànk yaa amee nanu ko laasit di ñu wax li waral hépatite B booba di jeexal waa bassin arachidier ba maanaam Kaolack ak la ko wër libération ne leneen luy jeexal askan wu Sénégal it mooy accident yi yéeni bi ne accident yi jéggi na dayo luy tolloog ñetti junni nit yéeni kaay bi ne faatu na ni ci accident de circulation diggante 2017 ak 2020 journal bi ne diggante 2021 2022 39 maanaam fanweeri junni juróom-ñeent yu teg ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ci accident ñoo faat junni nit ñaar ci ay nit ñoy faatu ci accident yi tali bi ci sénégal fukki junne yak ben yene kay bi ne ci Dakarou lay xewé waral ca bobu lepp yene kay réseau parlementaire pour la promotion de la sécurité routière ci sénégal di ñaawlo lu ni mel té né li muy rek moy fitna gi am ci accident yi digënté simila ak sa lu bari bari ci ay bakkan rot maire yu bari nak bis bi le jour mel ku naan li tax ñu ragala wacc seeni ndoma tank rot gannaaw bañu ñu téré cumul fonction ministre ak maire moy chômage lañuy ragal journal bi ne loola waral ñu bari ca ñom japp ne dañoo wara teggup lu daf leen di may bu nu seen ndomba ndomal tank ci ministère yenu len denk ñu mëna a wat ci maire ya lu ko moy dootun am lu def yene kay bi nak ne ba ci bésub tay ji ministre des collectivités territoriales jotul ben lettre de démission bu bawo ci maire mairub ndar ba mansour fay ne won ministre point ci ya ngay laaj mu ndax du dañ ko teel ci rapport of nak binu ko joxo ndax mansour fay yene kay ba ngay fatali ni neena ken woowu ko ken nit diglu ko Macky Sall nak mom las ne ben avocat Ousmane Sonko di maître Ciré dor li ma ngay xalat ci naka lañuy def ba mën ko topé haute trahison maanaam war gu mu war réew mi ci ni mu lata mo fegal ci bopp Sénégal source aane loola it liggéey bu rëy la indil président Bassirou Diomaye Faye ndax war naa réparer injustice yu bare bari yoo xam ne mi ngi am ci commandement territorial bi te Macky Sall def ko fi journal bi tuddee loola chantier double XL bu Diomaye moom Diomaye moo bokk xët gu njëkku l'observateur ak Macky Sall ak Abdoulaye Wade journal bi sëgg ci slogan yi njiitu réew yi indi bu nuy doog a falu yéenekaay bi bi ne Abdoulaye Wade la mu beaucoup travaillé président Macky Sall ñëw indil ñu la patrie avant le parti gouvernance sobre et vertueuse waaye gis nañu fu mu mujjee jomaay yéene bi ne jub ñaan yéene bi soog ñoo yóbbu tribunal dikk ñun ci mbir yu doy waar yu am ci procès yeggee ñu seeday magistrat yoo xam ne ñañu war a di ay sàmbaboy ñaare dañu leen di xar fa xuufa journal bi ne ay conguy doy waar lañu leen di song muy ay missile mystique ca la ñuy taxaw ñun ñaanal leen kenn dal ak jàmm daje dajee ëllëg incha allah